nañ dem ci yaay mbay docteur tariqa bi bay fay tànk ay fa mbay min fii bi max naa woo mooy docteur bi waawalaay bay fay tànk ay fa waa Sénégal ñëw leen ci yaay si mbay docteur tariqa bi bari fay tànk aayu fa may min tii bi max naa woo mooy docteur bi xawalay bari fay tànk aayu fa mm. may min tii bi max naa woo kuy kontel daayira yi da nga jàngul xilaasu zar ba ci buntu mu zeynatu may min fiiri max naa woo mooy docteur bi faawalaay fay tànk aayam fa may min fiiri max naa woo yow mu zeynatu xam coosaanal daayira xalifaaroy mbay min fii bi max naa woo. am dem ci yaay fay. mooy docteur bi. waawalaay day fay jànk ayub. mbay min fii bi max naa woo. boo ko jàngee mbooloo yar daan dikkal. sunu yan nen bu ñu demee ci waawoon. gis ko Saalum Mbay. mbay min bi max naa woo. lan dem si yaay bay. mooy docteur bi. bay fay tànk ay fa. mbay min bi max naa. ay fa bay woy naa la kañ xol mbay kenn du yow fii man. mbay min bi max naa woo. الدولة مكة جفسينا باي من تيب مخناو موي دفتر وعلي كيف سمت عينك باي من تيب مخناو واتيك الخليفة لم كنغر مولن وخي لا يا غير ونيلو لي لا يا لا مي mbay min fii bi ma xalaawoo. mooy docteur bi. waaw waaw laay bay fay tànk aayu fa. Hmm. mbay min fii bi ma xalaawoo. waa Sénégal xalifa ji bi jant. loo bañ bañ mu tiim la leeral la lii la yàlla may. mbay min fii bi ma xalaawoo. mooy docteur bi. وعليك كي شمس آيوك من دين مخلا وتلك الخلفاء تنقلكم ay soppeem am nañ cay naawal foo ci mbay sangu mbay min fii bi max naawu am dem ci yaare mbay mooy docteur bi waaw alaay bay fay tànk aayum ko mbay min xaadir tiijaan yi wagu lañu luy seen wërsëg nañu koo xaar ca laay ba laay bay xalifa may bay hmm. min tiidi max naawu mooy dëkka bi waawalaay xalifay tam aay waa Sénégal tiijaan yi naa lañu xalifay seen ceen gi feesal ngaay xalifa Babacar mbay min siidi max naa woo muy docteur bi waawalaay bay fay tànk aayam fa waa Sénégal moo naa luy sartam warmal ceen bi xam ni ceenu ko duy ceenay xalifa may bay min fii bi max naawu mooy dëkka hmm. bi faawalaay bay fay tànk aayam fa waa Sénégal kuy bañ ñi doo jiital xalifa mbay si kon bu saare jiitoo fa daanu xaj na ca bay min fii bi max naawu mooy dëkka bi seen xol yi kenn du xalifa max naa woo mooy dëkkoo bi waawalaay bari fay sant aayum ko xalifa may ñaan may ngama yaa yóbbu jàmm yi réew mi jàmm yi nguur gi jàmm بين سيد مخناه مجدك حوالي بيسيتم آيوم ñépp woy na may ci meloom dellu sant may ci jikkoom kenn desul du rakk du doom wóor na waati waawanoo alim yaa ngi ñépp la doomi diine Sénégal ak benn desul ku nuy tëgg naan yaay mbarum ci waawanoo moo tax ñu ni Cerno Ibnu Arabi moo Sëriñ Babacar ñoo nekkandoo woon ca Ndar maase woon Ibnu Arabi li nee na dama tëdd ak Sëriñ Babacar guddi ne mu jekki-jekki fi dal ci suuf ne ma di ko bés ba mu jóg ne mu ni ma Ibnu Arabi nee ma ni ko waaw nee mu ni ma ndeysaan yàlla wan na ma suwaru asmaa oom yëpp melooy turi yàlla yëpp yàlla wan na ma ko moo ma tax a fi tax ba tànnloo na ma ba moo tax tànn naa baasitu nee ndeysaan looloo taxoon mu ni xamoon naa ni mayam dina yaatu moo tax ibnu arabi li ndeysaan daal di gisal daal di woy sëriñ Babacar ni tiim nga ñëpp sama fawqa hatmil majdi tiflan wa yaafian ila an bada shamsan fatahabi lgarbu ñu ni Cerno Ibnu Arabi mu ni kii mooy xalifatu shamsi diini nuuru samaa'i wa badru dayaadi wa samsaamatul adbu moo tax ndeysaan ñu ni Ibnu Arabi mu ni Sëriñ Babacar si géej gi ku ci root am sa keppaar gi ku ci tool toog féex ne loo wax nit ñi dégg ne sa tap yi amul fu mu yem fa baxruka wa dilluka waariqun wa xawluka masmuuxun wa juuduka sëyboo ñu ngi cheikh mouhamadul fóode mu nga dëkk ca fuuta jalon mu ni gur jii warisa bi irfaanin wa ilmin maqaamawo fa jaadaytoo xadwan nihaali bila nukkee ne yaa doon sa baay mi ngi ndeysaan Cheikh Mouhamadul Mokhtar Daymaani ca Mauritanie mu ni warista abaaka fi ilmin wa taqwan wa du fardayni anta wa kullu aqwa mi ni Cheikh Mouhamadul Mokhtar Daymaani loo xam ci Serigne Babacar mu ni góor gii jàpp na bakkan rey ko góor gii moo duufal ruuxam góor gii moo mel ni yàlla bëgg fa maa taqwa alayka nafsu يقبالك التقوى فكيف عليك التقوى ولا يقوى عليك هوى ولكنما يقوى عليك هدى وتقوى من الشيخ مرسى سن جخته موم موي دوم قالي ما جخته كلا دا نيو سيك سيرين بابا كاندر ni doomi Maodo ji may dégg fii ginnaaw Maodo dem na naa ko seeti fekk Serigne Babacar yor kaanam di ko wëndeel ci lar naan wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani bi haala daari andari te ri andari la boobu géeñu ko dubbee tey la fay way naan ri andari moo tax sëriñ Babacar naan yéen ndaw ñi na ngeen sëyee xam-xam yëpp seen ndono mu jël nag tey saan baati arab boole ko baati tubaab di ko naan wa xaysuma laqaytu minhum waaxida yaqoolu mee ede yakoonu shahida ñu ni sëriñ Babacar mu ni ajj la daw la daawi daahihim mahruufu min baynihim noonoo waway min baynihim mahruufu ñu ni sëriñ Babacar mu ni gaañe koo ca dajeel ci waxam mu nga naan il faut il faut mu allifun bila ajal si siiwaway la da taxqiqi qawlin wa amal ñu ni sëriñ Babacar mu ni waa wazaaka dëbun musbitun moo tax ndeysaan maa paske wazaaka dëbun musbitun maa paske nee ndeysaan wa xadit wa shaddidil xadita lafdu est ne yooyu baat moo ko waneeg woy ko ngir wan ni ndaw ñi lu ngeen jàng la Maodo waxoon ba ko tubaab yi ne dañoo bëgg tubaab mu ni waaw kay mën naa nekk sax Babacar bii bu ngeen ma koy laajoon ma joxu leen ko ndax jiitu naa leen ci moom moo tax ndeysaan góor gi maas Mor Jaxate ba mu dajeeg moom fekk ko ca Ndar ni man kat kii ma doon wax naan tubaab laa lu mu doon man day jommal na ma laka ya laka yaa Ababakrin fadailu yaqsuru an wasfiha dihni alladi yatafakkaru ñu ni góor gi Mor Jaxate mu ni càng gépp jël na ko xilaafa ga yor na ko inna siyaadata baada mawti abika kat nuqilat ilayka li xikmatin hiya akbaru ñu ngi góor gi mor saasum jaxate mu ni bu fi Maodo ci fi Maodo jógee bu dul woon ak moom sharia bi jaxasoo lawlaaka lam yashidi shariata waxidun بعد ارتحال أبيك من هو أشهر ñu ngi góor gi Cheikh Anta Mbacke mu ni woon ma Musaaka na ma wayal sëriñ Babacar moo tax mu ni li mati Abi Bakrin xalifati Malikin darat hun nawaaxi sharquha summa mawlabu ne yaa ne yuxaaki Aba Bakrin xalifata Ahmadin بحلم وعلم لا إلى الكفر يهرب من جورجي مساكا muy xoolal Cheikh Anta Mbacke moo wax mooy ko góor gi góor gi Serigne Babacar moo beesal diine ginnaaw ba mu ràppee ne moo beesalaat jàkka yi bu ko deful woon jàkka ya ràpp yu jaddidu diinallaahi baxda xaraabi ladal xarbi ne law laawul masaajiru taxurubu leeram yaa jolli na bururan seenu seen ko muy melaxati màkkaa jox seena bay min tiiri max naa woo mooy daftaaji waawaalee bay fay tànk aayum fa lépp way na may ci maloom dellu sant bay ci jikkoom kenn desul du ak du doom wóor na waa ci waawanoo ñi ngi sëriñ Abbas Sall bu Louga mu ni sëriñ Babacar mi huwa taqiyu naqiyul qalbi wuslatuna sahlu sajiyaati wal axlaaqi saar fiiha ne di ko jóobëkk mu set rekk ca baax seetil sëriñ Babacar huwa safiyu majmaul bahrayni مرشدنا وعن المهالك والأسرار كافيها من الشيخ أحمد تابان العلوي ci Mauritanie mu ni góor gi moo doon njiitu jamono yaa waarisan yaa waarisan li imaamil asri maliki saqayta min faydi bil ilmi wan nayli laqad warisa abaka cheikha qudwatuna xalifatul xutbi najul xaatimi usuli ñu ngi Cheikh Hadi Touré mu ni yaa saakini Sénégal yi hal gayri mimma banaytum xaaidu faxri ne sama fondement mooy Seydil Haaji Malik fa mu assasi Shamsul Huda xutbi alhaaji Maliki alladi tadri ne waaye ki nga xam ni moo may plafonné ne bâtiment bi Maodoy base ba Maodoy fondement ba waaye ne ki nga xamante ni moo tiim ñépp tuwaature bâtiment ba wa mutammimi tamarul huda cheikhul asiyaahi qudwatina abi bakiri ñu ni Tijaan ibnu Baaba mu ni Sëriñ Babacar tiim nga sang ñépp samawta ala jaxaajaxatil baraya kama alatil xutaaqu ala albigaani ñu ni Cerno Haroona Rachid ca Gine Bisaaw muy góor gi boo bëggee am kawsara naan ca ndoxum kawsara ma ne seetil sëriñ Babacar Si huwal kawsarul mawruudu min kulli jaanibin ne góor gi ku mu naan dal dootoo gii dem gii ndeysaan naan waayam yi dootul fay manaa yi lu wutun siika tawbalu gamaani mi ne boo ca naanee laaj soxlaatoo ndoxum ndeysaan taw ne huwal urwatul wusqa ne boo bëggee jàpp ci buumu yàlla gu dëgër gi jàppal ci borom bonekaare de huwal urwatul wusqa li muctasimin bi huwal xablu xablullahi laa kattarayimi ñu ni Cheikh Hadji Mansour moo tax bu ñu nit baax na na ko ay bokkam wax ñu ni Cheikh Hadji Mansour Sy mu ni gi gii xalifa cheikh day am fayda ku wuutu Maodo day am fulla naar baa ñëw ci waawan góor gi nekk ci biir ñëw ci jumaa ji dégg benn naar di xutba ba yàgg ñu liqaamal ko muy jiite sëriñ Babacar ñëw ni sëlmal leen ni naar bi yow musaafir nga jumaay wàcc na la delsil ci rang gi ni maam Aatu xutba waatal ñu li xaamal la nga jiite seel aaji Mansuur sot xalimaam ni xalifa cheikh day am fayda fa waajaban fa waajaban li cheikhi nun day la qad tanuxat salaatul jamee ministère Hadji Mansour mu ni budul woon ak borom barikaare bi a jumaay ja a tey walaw laaka salaata la afsaduwa bi taqridin yawmul xaadiriina ministère Hadji Mansour aminun naqiyul qalbi man amruhu ala ka talati falin bal ka shamsi zahirati ñu ngi Cheikh Haaji Mansour mu ni kii moo wuutu baayam moo wuutu Cheikh xalifatu shamsi diini waarisu malikin alayhi ridal mawla wa anna wa itrati ñu ni Cheikh Haaji Mansour mu ni góor gi dundal na diine leeral na réew mi anaara wa ahya al bilaada بأسرها وكالبدر والمصباح في كل بلدتي ñu ngi Cheikh Hadji Abdoul Aziz mu ni xoolal man de baxru yépp woy naa ci Babacar Si waaye nit ku mat boo koy woy da ngay jël baxru ba mat ndax say yëf déggoo wa fa min al buxuuri ixtartu fa min al buxuuri ixtartu بحر الكامل لكمالي في مدح بحر الكامل ñu ni Cheikh Hadji Abdoul Aziz mu ngi yëkkatil sa loxo yow Serigne Babacar tàllal ko yàlla Sénégal ci jàmm naat am nawet yu barkeel jàmm ni ci réew mi loo wax yàlla mu def irfax yadayka ilal ula yaa man hawa min rabbi ma shaa doona takasuli ñu ni Cheikh Hadji Abdoul Aziz mu ni Serigne Babacar duural sa tànk ci suuf loo wax yàlla mu def gàncax yi naat wa ala turaabi drib برجلك قائلا ما شئت قد خصصت خير نوائلي نمشي الحاج عبد العزيز مني توسلن تباكوكو بالأملاح موكو يو دان تجدني تتسفت مجبني كجار من البسيط مجيد كامل رمل ووافر رجب بند سماك سبر مي بمي كمنجة بمي معزب بمي ترمفت bu muy gitaar te bu muy fanfaar li lii li war góor bu leen ko xiinal bu leen malax ba leen tama yi ba leen juñu yi ba leen bambu ji woy ko caar ñu ngi Cheikh Hadji Abdoul Habib Cheikh Hadji mu ñu xoolal góor gii dey man maa ngi ñëw ci yow ne wutuma dara lu dul nga jàpp ci sama loxo yéegi ma ca xadara yàlla ba sëriñ man sa borom daara ji nee gaaña waajaa koy xam yaa sayida saadaati jittuka taaliban naylal wusuuli li hadrati rahmaani law shita tarfawni ila qunamil ula hatta akunza makanatan li makani ne yaa wuutu ahmad ne ca madina yaa wuutu ahmad ne ca faas yaa wuutu sabaay ci ñett yi wa xalifatun lil ahmadayni wa malikin fi l ilmi wal asraari wal irfaani ñu ngi Cheikh Hadji Habib mu ni nag na sa turandoo delloo seewoon jullit ya ba yonent bi faatoo ñépp gërëm dani man kaana muhammadan man kaana yaxbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata waaye wa man kaana yaxbudullaha fa inna allaha xayyun laa yamut ku muhammad taxoon di def mission jeex na dem na waaye ku yàlla taxoon di def mission du fi jóg yàlla du fi jóg mu ni ba baaba ba Seydil Hadji Malick génnee àdduna nun ñépp a jaaxle yàlla delloo si na Abubakar turandoo delloo seewoon jullit ña ni na tazalzala baadaho wa fa sabaytana lil xaq ya sama daani ñu ngi sëriñ Mansoor borom daara ji muy ci réew bi kem talaay diir bi ngay ratteekat nee loo fa mu am من زاروا أتح بشاة من زمن يفوت إيمان من شيء وماهو من برم داجي من ترى البلاد كجور نعمر وفوت جرو سالم بان وقبم نسأل لقياه لا سيما سيما نكارو خير قرى كذاك بلا حنك مغناه نيبا من سبرم داجي من سان الخلافة بل نال الوراثة بل دعوة العالة عمن كان يغشاه كف السماحة بل كن الهداية بل عام البرية من مرضاة مولاه ساعات الشمائل بل حال البدائل بل حر المنائل بل بل طاب مرعاه من سيد الشيخ أحمد كيدان سمكتم mu ngi sëriñ Babacar mbaxana mu ngi naan dàll yi bul ko fëndal dàll yi naan mbaxana mi bul diis ci koom nee ñoom ñaar ñu naan grand mbubb bii bul ko xatal kalimaatu woo xutawaatu woo laxdaatu woo adhat muqadaratan waatasiila leeram yaa jolliina bulu an seen seen ko muy siina mbay mi bi max naa woo nañ def muy dëkk bi waaw laay fay fay ay fa mbay mi bi max naa woo